Yeah. toujours dans votre acte du jour de ce 10 septembre 2024 suñ fa jógee dañuy dem ci interdiction de sortir du territoire ñii di avocats républicains ñi ngi dénoncé violation des libertés individuelles jëmale ko daal ci collectif bi nga les avocats républicains qui ngi insurgé wu jëmale ko ci arrestation arbitraire yi nga ay violation de liberté individuelle ak lii interdiction sématique nous ko daal ci sortie du territoire jëmale ko ci ay avocats yoo nous ni dañu sukkandiku ci benn interdiction boo wu mesure boo attentatoire la jëmale ko ci liberté fondamentale ñu dem Sénégal dellu si ci ay mesures yoo xamante ne dafa extrême gravité ordonné li nga xamante ne mooy gouvernement bi mu mettre en exécution lépp loo xamante ne discrètement la jaarle ko ci police des frontières ak lii di violation flagrante des droits de citoyens ginnaaw bi nga xamante ne benn note la bu ñu signé jëmale ko daal le lundi 9 septembre ñii di collectif des avocats républicains dañu entendre engager lii di combat judiciaire jëmale ko daal mettre fin ci ay pratiques yoo xamante ni dafa doon loo xamante ni beneen âge la ñu doon lu injuste dangereux ba noppi daal di incarner malheureusement lii di symbole état de droit malmené par l'agonie en tout cas muy muy mer ba bi nga xamante ni les avocats républicains jël nañ ko daal di alerter état du Sénégal jëmale ko daal ci ay mesures yi nga xamante ni ñi ngi def ay arrestation arbitraire barki déem ba bàjaaxate la imam daw kii di amé Suzanne Camara tay kii di commissaire Keita la kii di Lat Diop ñu interdire ko mu génn Abdoulaye Seydou Sow ak Mamadou Gueye en tout cas ñii di les avocats républicains ñi ngi dénoncer daal benn violation des libertés individuelles